Ibou Diarra nekk au niveau de la région di andak président Irama Djiba ñuy liggéey liggéey bu mel non donc di ñaar di ñaan ñëpp ñu mëna ñëw régulariser wu bu dé am nga école bo ñëw gis Ibou Diarra boo gisee Irama dina la wax yan nga wara dox pour sa école ñu xam mais bo leen wo Seydou Sarr ngeen ne ko man amna école joxma joxma mënul add parce que mënuma tas jotaay bi nga xamné amna am na doole am na connaître te dañu war a jàppale kuréel yu mel nii ñi ñi ànd si ñu mën a wuyu ci li nga xam ne loolu la ñu tëral